daal di xuus waxtaanee li nga xamante ne wàllum justice la par rapport ak euh, procès bi nga xamante ne mu ngi doon am léegi ni tey ci suba ci diggante ba Diakhaté ak ki nga xamante ne moom moo di imam Cheikh Tidiane Ndao ba procureur daal di sàkku ngir ñu daal di leen di daan juróom benn weeru kaso yoo xamante ne dañu koy tëdd yëkkati cent mille francs ci amande teg ko ci kaw ndoddal Ousmane Sonko sa point de vue par rapport ak sentence yi nga xamante ne daanu na ba écoutez man euh, dégluwuma euh, euh, réquisitoire procureur bi. très honnêtement information bi yow mi sax yaa ma ko bi may dugg ci ci ci plateau bi. parce que mm. j'étais ba ba may terminer sama chronique autour de midi. fële donc je n'ai pas eu de nouvelles je n'ai pas eu d'information véritablement bi ma ñëwee fii nga ma ne procureur effectivement six mois la def la daan la ñaan pour ñu daan ko. pour ñu teg ko ci ndodd Bah Diakhaté et puis ak cent mille cent mille francs d'amende mhm. voilà maintenant euh, lan moo ko motiver je n'en sais rien peut-être que nii après bu ñu jotee euh, PV bi dinañu xam exactement le contenu et euh, les motivations qui ont mhm. justement amené le procureur mhm. à demander justement Euh, peine bu toll noonu six mois euh, et cent mille francs d'amende on verra bien ce qui ce est-ce que euh, juges yi dinañu ak procureur bi loolu dinañ ci xam dara dans un avenir très très très proche peut-être dans les vingt quatre ou quarante huit heures. Mhm. voilà comme c'est pas un grand procès peut-être que mbir mi dina gaaw et puis gars yi dinañ tontu très rapidement. Mhm. mais je pense que ni ak nu munti demee mbir mi la du du du du véritablement ce problème là parce que am na yoo xam wax na ko. ko eh ben euh, na am nañu kii des gens qui ont eu à dire pire dans ce pays là et pourtant li dara mosu leen jot ban motivation moo yóbbu euh, euh, lii yëpp ba mu tey mu am je n'en sais rien il y a beaucoup de supputations il y a beaucoup de réflexions qui sont faites par rapport ak arrestation boobu ba tey ñu ne lii la procureur wax mm-hmm. c'est à ce niveau-là je pense qu'il faut réfléchir parce que pratiquement pour délit entre guillemets pareil eh ben euh, je crois que ni jarul woon peut-être lii yëpp moom lañ ko defee neen mais mm. peut-être dafa am yootu d'autres soubassements et l'avenir nous le nous le dira très mm-hmm. très rapidement wax naan euh, ci délit bu mel nii mais délit bi tamit c'est extrêmement grave loo xamante ni tey nit ki yëkkati na ay kàddu jàkkaarloog le premier ministre jiñ ko wàllum góor jigéen est-ce que logique pour logique waroon na Euh, euh, je pense que ni euh, daf daf ko jiiñu ko nekko ko góor jigéen la il me semble waxul taxaw jàkkaarloog moom ne premier ministre du Sénégal góor jigéen la. je pense que loolu la wax de. Bah Diakhaté dafa taxaw ne Ousmane Sonko góor jigéen nga. loolu la wax daal ne am na ay preuves. Je, je, il faut que je qu'on voie man très honnêtement parce que gisuma loolu gisumoon loolu de. te très honnêtement dafa taxaw ne Ousmane Sonko. gisoo loolu wala déggoo loolu. wala da ngaa bëggut a dégg. li Bah Diakhaté wax. non gisuma dégguma lu ma dégg amul benn problème dinaa ci am une idée mais euh, dafa taxaw jàkkaarloog euh, euh, comment dire Ousmane Sonko wala taxaw ci télé ne yow Ousmane Sonko yow góor jigéen a am naa ay preuve ni góor jigéen nga est-ce que loolu la wax. Alioune Sow on est au Sénégal te information bi ni muy dawee yow mii xam nga ko. Mm-hmm. en tant que de publication Mm-hmm. Bah Diakité dafa def live. Mm-hmm. taxaw ne le premier ministre Ousmane Sonko góor jigéen la te am naa ci ay preuves. Ah. lii la wax. d'accord sa point de vue par rapport ak kàddu yu ni mel. bu dee loolu la wax c'est très grave. même bu amoon ay preuves gëw ma ni loolu war nañ ko wax. li nga may wax ne dafa ma bett ah. Mm-hmm. que man dégg naa coow bi rek <laughs> mais xaw ma woon ni nii la demee fii la toll. je rappelle que toute la semaine j'ai pas fait de télé et je n'ai pas bougé parce que j'étais malade. Mm-hmm. donc peut-être que loolu moo tax suivre ma lu bari mais très très honnêtement. Euh, mm-hmm. euh, ça me surprend li nga may wax ne nga ne Bah Diakhaté dafa dafa loolu la wax. je suis scotché ah yi ma la wax. Uh-huh. moom la Bah Diakhaté wax doonut luñ ko sosal te soo paree xam naa ne ci sa téléphone dinaa ko dem vérifier ko vérifier léegi mm-hmm. comme je vous fais confiance. Euh, eh ben on verra bien mais loolu ça me surprend et bu fekkee ne noonu la demee. parce que loolu même bu dee dëgg la sax. même bu doon dëgg la sax. Mhm. loolu kenn du ko def doomu aadama parce que euh, façon yi wax yooyu kenn du ko teg ci ndoddu nit. Mhm. surtout ci landerneau politique mun nañu wax waxu politique. Mhm. Euh, wax suñu wax entre ñun mais euh, parce que ci mbirum àdduna mais pas forcément di accuser nit loo xam ne wax dëgg yàlla. même bu fekkoon ni dafa loon lu am sax. nit ku nekk dañ ko war a dañ ko war a même bu loolu dafa am lan nga ciy njort. ma njortuma dara xam nga dama xaw a dama jaaxale sax ci li ma wax nii je vous dis hein très honnêtement je suis surpris là je suis assis tout ce que j'ai envie c'est d'aller vérifier euh, euh, euh, wax boobu fan la ko waxee ak nan la ko waxee ma déggal ko sama bopp gisal ko sama bopp. parce que mm. man même wax naa ci ci suba. le matin dans mm. mes chroniques matinales euh, mais euh, franchement euh, <laughs> du loolu. yow mën nga def chronique wax ci loo xamante ne demuloo à la source seetaani ji ba jakite li mu wax nga def ci sa chronique. non c'est que du loolu rek laa doon def comme chronique yaa ngi may suivre bu may def samay chronique matinale. Ah, heure boobu ngay def matinale day tombé man. day def matinale na loolu moo tax ça fait trois ans que je fais des mm-hmm. euh, je parle de toute l'actualité surtout je prends quelques trois ou quatre points saillants. Mm-hmm. et j'en parle. Mm-hmm. problème mu Bah Diakhaté moo doon lu gën gàtt ci lu ma wax tey. yaa ngi dégg te li ma si doon wax sax je le disais de manière aérée wax bi ni la demee ndax Bah bu taxaw jàkkaarloog Ousmane Sonko ne ko yow uh, góor jigéen nga. Mm -hmm. uh, am naa ay preuve ni góor jigéen nga. Mhm. Euh, euh, nit sax dañ koy fekk muy njaaloo. Mm euh, yonante bi am lu mu ci wax. Mhm. wala alxuraan am lu mu ci wax ci ci ci ci wàllum suturaal nit ki la nombre de personnes yi nga xam ne ñoom ñoo war a teew ci loolu pour ñu mën a constu consacré que ni. Mm-hmm. loolu loolu am na. Mm-hmm. donc bu tolloo foofu daf may xaw a euh, suspendre je vous parle comme ça. Mm-hmm. mais je suis très très euh, surpris. Euh, parce que d' abord ce n' est pas du niveau de ba Diakhaté. je crois qu'il est assez intelligent ou il devrait être assez intelligent pour ne pas sortir une sottise pareille si tel était le cas ah parce que même bu fekkee ne nee naa la dëgg la sax laa la wax ni am na yoo xam ne ci wàllum politique jarul nga koy teg ci ndoddu nit Euh, bu dul dëgg euh, je sais pas en même temps je vous fais confiance parce que yow yaa ma wax loolu insiste nga là-dessus. Mhm. Euh, apparemment vous êtes sûr de ce que vous dites bu dul dëgg dina dina dina dina doy waar torop mais xam nga. bu dul dëgg lan la ëttu àttekaay bi war a teg ci ndoddal Bah Diakhaté par rapport ak propos yi mu yëkkati. mais ne ko circuler y a y a rien à voir bu fekkee du dëgg. Mhm. bu fekkee ne Bah Diakhaté li mu wax. Mhm. du dëgg. eh il faut que il faut que ñu condamné condamné ko pour. sans pour ba ak mais teg wax bu ñaaw ci ndoddu nit. Mhm. mais surtout que nit kooku nekk ñu dem xooli certainement l' article 254 bi nga xam ne ci loolu laa doon commenté ce matin d' ailleurs. Mhm. Euh, alinéa je crois que c' est le 2 je crois que c' est alinéa 2 ci loolu laa mhm. doon wax suba nag moo tax ma dugg tax man dugguma dans le fond parce que j'avais préféré. bàyyi ba ñu euh, ba ba ñu nekk ci tribunal ba. au procès ba ñu wax li ñuy wax déglu procureur déglu la la défense. et puis après on verra la suite man loolu laa doon xaar. mais euh, pour gën ci mën a dugg. après j'ai juste eu à parler de l'alinéa de l'article bi nga xam ne ça date de quoi 1965 euh, raison yi taxoon ñu teg ko c'était pas véritablement pour un premier ministre du Sénégal mm-hmm. euh, c'était euh, par rapport à une situation conjoncturelle dàq par euh, par le mm. président kii euh, euh, Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. et que après bi nga ko dàqee ñu éliminer le poste de premier ministre moom président Senghor donc il fallait charges yi dafa diisoon trop ci moom il fallait que mu jël une partie de ses charges de ses prérogatives présidentielles dénk ko beneen nit boo xam ne c'était le nouvel. homme fort numéro 2 muy Jean Collin boobu donc moo taxoon ñu pour protéger ko moom parce que dañ ko jox yenn charge moo taxoon ñu créer cet article là. Mm -hmm. euh, euh, qui date donc de euh, pratiquement euh, léegi mu def 40 ans. Mm-hmm. donc loolu man si yooyu laa doon wax ci suba. Mm-hmm. mais bëggu moon dugg ci détail et je ne voulais pas savoir qui a dit quoi mais tollu woon ci xalaat ni Bah Diakhaté dafa jàkkaarloo. Euh, euh, gëm naa la demee naa ko dem vérifier après parce que fi ma toog nii may jàkkaarloog yow. <laughs> aw boo ko boo ko vérifier ba pare wax ma. aw ma jàmm quoi boo ko vérifier ba pare wax ma par rapport ak euh, li nga xamante ne tey jii nii moo ñeel Bah Diakhaté ak propos yi nga xamante ne wax na ko doonut loo xamante ne ñun lu ñu koy créer la que suñu métier bi ñuy def mayuñu ko j'ai compris mais dama dama na ko. Mhm. du ñu ko yokk du ñu ko wàññi. ni mu ko waxee noonu ci la daal di terewul terewul ni ah. Uh-huh. fi ma toog nii. Mm-hmm. Euh, maa ngi tëb di dal parce que <laughs> euh, euh, parce que pour man. Mm-hmm. quand même quelqu'un du niveau de Bah Diakhaté warul mën a taxaw ci tele wax wax boobu noonu. aussi aussi sèchement. Mm-hmm. Euh, si ndoddu nit même bu fekkoon ni sax am preuve mi yëkkati kàddu yooyu daal di koy wax ñu jis coalition Benno Bokk Yaakaar ay responsable yu APR mm-hmm. génn taxaw di soutenir Bah Diakhaté ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko daal di koy wax est-ce que seenub sorti ci moment bi waroon naa doon dooleel koo xamante ne ab saagakat la ab waxkatu nit lu ñaaw la ab yeekatu fitna la ci réew sorti bi nga xamante ne est-ce que li ngay wax ne li mu li mu wax lu mën a taal réew la li mu wax lu mën a taal réew la. waaw ah, mais am jiiñ premier ministre ne ko góor jigéen la. non muy premier yor naa ay preuve non muy premier ministre loolu selon vous mënut a yëngal ab fitna ci réew. non góob ko il est où le problème dafa bu fekkee dafa tooñ dañ koy sanctionné mais vous n'allez pas dire que ni euh, premier ministre la euh, et que Ousmane Sonko la et que dañ jiiñ nit nit ki la ñu jiiñ la personne. ma ce qui mm-hmm. me dérange nit la personne moom mun na sax porter plainte à de répartition euh, euh, poste premier ministre bi parce que quand même décret boobu ba léegi génnewuñ ko ci journal officiel. Mhm. pour xam ndax sax mun nañu appliquer article 254 boobu man j'étais plutôt ci domaine technique. Euh, euh, tey ci suba bi ma ciy wax et euh, maintenant ay mun na taal fitna ki demee noonu mais am na ñu fi gën a def lu gën a grave loolu. Hmm. ñoom Ousmane Sonko wax nañ fi lu gën a pire que loolu. quand ils étaient dans l'opposition non je ne suis je vais pas rentrer dans les détails vous si je suis journaliste mais su ma la invité tey. yow yaa may wax ñoom Ousmane Sonko lu gën a lan lañ fi wax. ci loo xamante ne Bah Diakhaté wax na ko. est-ce que Ousmane Sonko. Mhm. mës naa taxaw eh, jiiñ Amadou Ba ne ko ab góor jigéen la. non dama ne. mais li tax mu wax non waxuma du affaire góor jigéen affaire jiiñante la jiiñ ay wax yu doy waar yoo xam ne mën na taal réew lii c'est une personne entre ñaari nit la problème bi entre ñaari c'est pas une question de de par rapport à la à, à la fonction du du de de de ce monsieur en question absolument rien à voir nit la tooñ bu fekkee ne tooñ am na bu fekkee ne loolu mu wax lu am la nit la tooñ tooñul keneen. procureur moo autosaisir. Ousmane Sonko porté wu plainte oui procureur dafa saisir man j'aurais préféré que ce man boobu moo ma doon gënal que procureur di di saisir auto-saisir pourquoi pour se euh, référer sur un article qui date de boo xam ne sax déjà les détails on ne connaît pas parce que xamuñu sax ndax prérogatives yooyu euh, euh, defal nañ ko dérogation par rapport à certaines prérogatives présidentielles mënuñu ci lu leer parce que on pas le euh, le décret bi nga xam ne euh, moom le président signé pour loolu eh gisee guñ ko ba tey journal officiel alors que normalement y a un délai boo xam ne bu fekkee ne def nañ ko par rapport un décret délai boo xam ne dañ ko war a génne immédiatement dans le journal officiel mais pourquoi décret boobu génnagul ba tey hmm. donc qu'est-ce qui se derrière man côté boobu moom ma intéressé woon Mmh. voilà maintenant ah, quand il s'agit d'une personne à une autre te ñu gisuñu décret mënuñu référé wu man personnellement mënu guma référé wu sur l'article 254 alinéa 2 cet même article là en général mënuma ci référé wu parce que gisaguma décret bi ci journal officiel buy wanee répartition tâche yi par rapport ak la fonction de premier ministre est-ce que dañ ko defal ay dérogation par rapport a certaines prérogatives présidentielles waaw wala déet man loolu laa doon wër mais loolu gisuma ko ce matin donc ma doon xaar lan la décision di am ma ñëw nekk ci yeneen affaire toog fi tey jàkkaarloog yow pour faire cette émission là cette grande émission valise diplomatique ñu ne ma procureur lii la teg ci ndoddam ci biir waxtaan bi nga dellu soit ma jox information bi selon laquelle ni moom dafa jàkkaarloog télévision ne waa Sénégal moi je vous dis ah j'étais pas bien portant la semaine dernière mm-hmm. moo tax euh, j'avais pas fait de télé euh, je gérais difficilement mm-hmm. euh, le quotidien le mandat c'était pas mm-hmm. évident j'ai recommencé vendredi ak Aïssatou Diop Fall depuis ak tey le matin laa def émission petit euh, déj ci ci ci donc mm. sinon toute la semaine dernière dix jours defuma émission mm-hmm. donc forcément ça me pose un problème moo tax bi ma ñëwaatee toog fii tey ma nekkoon ci ay bagages pour me rattraper par rapport au retard que j'avais perdu mm-hmm. léegi bi ma paree sama émission donc maintenant je suis en face de vous et vous me dites que ni moom moo wax loolu moo tax mm-hmm. gis nga j'étais surpris et je suis encore euh, aussi euh, surpris en même temps agacé parce que wax boobu si ñoom. donc mais euh, quant à mu jàkkaarloog ne ne jëw diw. Euh, euh, góor jigéen nga te am naa ay preuve ni góor jigéen nga preuve bi mooy lan preuve bi mooy dafa fekk nit ki di tëddee tëddante wala c'est c'est quoi le truc c'est c'est pas beau ça ça surprend très honnêtement man dama waxoon ay waxu politique la rek ay yor naa kayit bi diw bi ngay àndal parce que daan na accusé Abdou Aziz Kébé ni moom mooy cinquième président cinquième vice président wu PASTEF mhm. donc accusation yooyu mu Euh, Kébé avec euh, parce que dafa amoon ay euh, difficulté bi mu nekkee ci armée bi par rapport ak certains de ses collaborateurs. Mm-hmm. donc yooyu mu tegoon ba ñu defoon ko délai de rigueur de quarante cinq jours ak demee noonu. je ne sais pas ndax loolu suivre nga ko. Mm-hmm. donc loolu yëpp faisant ça fait effectivement des fois j'aurais tendance à me dire que ni xam naa ci wax boobu rek lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko indiloon problème. léegi pour appuyer par rapport ak li may wax ak mm-hmm. yow li ngay wax. su fekkente déglu kii di Bah Diakhaté kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko de ce ñun ñëpp ñu mën a amandoo aperçu ci liy waral ñu daal di teg loxo kii di Bah Diakhaté ak tuuma yi mu teg ci kaw Ousmane Sonko mu mel ni élément bi yembagul dinañ ci revenir at par rapport ak kàddu yi nga xamante ne Bah Diakité wax na ko seen su fekkente ni baax na à tout moment mën nga ma interrompre mm-hmm. euh, ba tey damay daal di wëyal ci sortie bi nga xamante ne APR ak Benno Bokk Yaakaar def nañu ko ci sortie boobu naka nga gisee seen seen sortie ak soutien bi nga xamante ne apporteel nañ ko Bah Diakité c'est un soutien normal aussi en même temps parce que ba Diakité est activiste républicain mais il n'est pas que activiste <laughs> il est mais affilié à un parti politique la PR alliance pour la république xëy na peut-être sax loolu moo tax qu'il sa euh, mu wooyee boppam mm. maintenant euh, euh, ñi nekkal forcément dañ koy soutenir ça aurait été un autre personne dans un autre parti politique avec les mêmes difficultés en face du gouvernement en face de l'état actuel eh je crois que ni il ferait exactement ces gens-là feraient exactement la même chose c'est une question de solidarité entre eux donc ils essaieront de défendre bec et ongle seen

seen collègue seen partenaire mën a génn ci problème yooyu. en politisant l'affaire wala gën ko yéegal sur le plan euh, au niveau de l'information pour que àdduna bi yëpp xam euh, nit ñi gën ci mën ci xel pour que certainement euh, ñu mu gën a yomb pour ñoom ñu mën cee génn. Mhm. certainement loolu moo tax ñu def quoi ce sont des hommes politiques c'est normal. gis nga Ousmane Sonko quand il y a problèmes wala quelqu'un dans l'opposition en général. mu mhm. ñoom Barthélémy ak mhm. seen i àndandoo ak seen i am di jàmm ak ñi ñu bokkal seen kuréel boobu dañuy mhm. génn dem jéem défendre naturellement euh, seen euh, euh, collègue boobu wala collaborateur donc c'est c'est pas étonnant c'est évident mu ngi noonu am na mhm. solo mouvement de soutien nga wax seen bu fekkente ne élément bi yemb na ñu tegal ko mu si saw mu déglu ba xam lii war nañ ci soutenir koo xamante ne nii da nga ne ak activiste républicain nga may ma élément bi ñu dellu si waat mbirum góor jigéen bako bako ngir yàlla parce que da nga tëddee ay góor bañ am interne leen hôpital nga sëyeeg ay jigéen ba ñu jiiñ la sodomie Oxfam jox la cent million nga recevoir ñu euh, mu tudd sax Majid Nassar meilleur le na de de du Havre nekk koo jigéen nga ñëw couple góor jigéen affirmer seen seen seen seen àndoo ak yow nga dem Suisse ay góor jigéen recevoir la yow lan nga mën a wax ci góor jigéen nga ñëw gars yi def seen loi nga ne sous réserve ba Karim Xrum génn di wax après nga doon a ñëwaat di wax di jéem a nëbbatu def discours pour non mënoo li ñuy wax maanaam del wax rek di nga wax kat dana wax ba làmm ginnaaw ne du saa du saa bos dox kat tamit dina dox ba dëgg yi neefere doroyam donc loolu laa ci bëggoon toftal ci lu ndaw. j'avais dit 30 000 mais je suis à 39 donc sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp man nag li ma wax moom leer na. mu ngi noonu nee na man nag li ma wax leer na ay kàddoom mu daal di ciy toftal daal ne procureur na autosaisiru ñu ngi naan plainte collectif moo ngi toog di leen xaar jour bi ba mu noppee ci live bi nga xamante ne moom la doon def ci la division des investigations criminelles di dikk daal di koy jàpp see fii ci Pikine Technopole. mais moom li mu wax ni euh, gisuma ci ni dafa doon dafa wax Ousmane Sonko danga nga tëdd ay ay jig ay góor. li mu wax nii mais man gisuma loolu de li ma gis xam nga mooy lan ak li ma dégg mooy Ousmane Sonko dafay lëkkaloo ak ay góor jigéen. d'accord cité ko mais waxul nii day tëdd góor jigéen. accusé wu ko xam nga maa ngi lay wax ni euh, euh, loolu sànq parce que yow xam nga loolu nga ma wax. Mhm. kii Bah dafa ne Ousmane Sonko day tëdd ak ay góor. te am na ay preuve moo tax fi ma toog mënu ma fi jóge bi ma déggee wax boobu mais bu fekkee ne wax bi lii kese la du luy Bah Diakhaté wax donc Bah Diakhaté li mu wax mooy euh, li mu mettre en exergue mooy c'est les relations de Ousmane Sonko parce que dem na Suisse parce que recevoir na ay nit parce que recevoir na ay couple homosexuel parce que parce que parce que parce que euh, bàyyil bàyyil bàyyil lëkkaloo Ousmane Sonko sodomie hmm? oh, non sodomie bi du affaire góor jigéen ki euh, ba ñu jiiñ la sodomie la wax Mhm. ba nu jiiñ la sodomi kan la jiñ sodomi kan lañ jiñ sodomi Ousmane kan moo ko jiñ sodomi Adji Sarr moo ko jiñoon sodomi dëgg la du dëgg man pour man Bah Diakhaté loolu lay wax parce que kenn kese moo ko fa jiñ mosuma gis góor jigéen bu jiñ soo Sonko dara kenn moo ko jiñ dara loolu ñuy wax noonu c'est un terme tellement dégueulasse que que quand j'en parle même je je pas bon yaa ngi dégg mais on est obligé de parler parce que dañu laaj il faut ñu tontu yaa ngi dégg mais c'est d'une évidence que ni Euh, euh, buy wax jiñ euh, ji ba ñu jiñ la fi sodomi loolu Adji Sarr moo ko doon wax c'est du c'est c'est loolu loolu ci gémmiñu Adji Sarr la jógee xëy na Bass Diakhaté pour man loolu kese lay wax parce que man tamit maa ngi doon dute ci intelligence su Bass Diakhaté mm. ni waroo taxaw quand même ci nit jàkkaarloog moom ne ko yow góor jigéen nga mm. parce que am naa ay preuve ni góor jigéen nga man bu ma bu ma nee am naa ay preuve nit góor jigéen te lool même bu ma amoon preuve sax duma ko def parce que nit quand dañ koy suturaal mm. yaa ngi dégg même bu bu bu amoon ay preuve sax waru koo wax waxatum laa nag ni lii nii du la wax bu la neexee nga répété waat ko ngeen waat ko deux minutes mm. mais dégguma fi benn yoon ni Bah Diakhaté dafa taxaw lii mooy tax ngeen ne euh, Sénégal dañuy dañuy euh, euh, dafay dafay tàkk no dafa accuser nit kii sous sous seen ne na nga dégluwaat vidéo bi hmm. mm-hmm. donc mbirum góor jigéen Sonko bako mbirum góor jigéen bako bako ngir yàlla parce da nga tëddee ay góor bañ am interne leen hôpital nga sëyeeg ay jigéen ngir yàlla parce que da nga tëddee ay góor bañ am interne leen hôpital nga sëyeeg ay jigéen ba ñu jiiñ la sodomie Oxfam loolu. mu ngi noonu. da nga tëddee ay góor. non sooy leen hôpital. Mm, li nga dégg leer na wala leer. leer na tey leer na leer na. Mm-hmm. est-ce que wax ji war naa génn ci gémminu Bah Diakité. non déedéet. Hmm? déedéet. waru cee génn bu doon est-ce que waa APR war ah, mm, war nañ ko soutenir moom. parce que seen collaborateur la loolu boobu mënul dañ mais lii nii euh, kii na ma trop. xaw c'est gênant lii kenn du ko wax. wax bi dafa xaw a ñaaw tuuti mm-hmm. bëgguma bëgguma lii quoi. Mm-hmm. bëgguma lii mais euh, Ousmane Sonko moo waroon porter plainte su ko neexee. wax ju rëy ji nga wax ko premier ministre. non du ko affaire premier ministre loolu bëgguma ko kii parce que xool wax nga fi wax nañ fi ay wax yu rëy président de la république. loolu loolu président kiy jiite réew. Mm-hmm. ko xam ne moom la ñu jagleel article quatre-vingt. fii sax ay dérogation de prérogative ngay wax. yaa ngi dégg référé à cet article là que je te dis qui que je vous dis qui donc ça absolument rien à lii nii man ku ma ko wax man sama bopp ma nekk premier ministre man maa lay dem premier ministre laa wax du ma dem di wëri ay article 254 damay dem man bu fekkee ne kii li may wax dara lu ci dëgg damay jël sama sol sama daal dem ba ci euh, euh, fi ma xam ne doone benn mu laaj ko bu doon citation directe sax ma laaj ko parce que lii lu gaaw lañ ci war a tontu ndax moom moo ko def point baaxul même bu ma ko amoon preuve sax du ma ko wax. Mm. waaw je vous parle comme ça mais je suis très gêné. Mm-hmm. parce que wax bi warul bokk ci ay wax yoo xam ne. ci ci ci mu ngi mu ngi mu ngi ay leeral la woon yoo xamante dafay baax ñu daal di koy. indi édifier édifier yi nga xamante aussi tamit ñu ngi ñuy seetaan. non bi lan moo ko waral tey ba tax. ñuy jàkkaarloo. non mais yii nii yii nii Ousmane Sonko. ci mhm. boppam. Mhm. moom en tant que être humain en tant que nit en tant que bàyyi jàmbur ak ndeyu jàmbur ak jëkkëru jàmbur moom mënoon jóg moom parce que bu liggéey day wàcc. Mhm. comme yow ni ngay liggéey nii en tant que journaliste nga wàcc bu wàccee liggéey wala bu amee pause mu dem jël kayitam dem porter plainte wax gi jeex parce que moom problème mu la ndax liñ koy accuser ni fekkeewul avant moom muy nekk premier ministre. Mhm. donc comme man avant may nekk premier ministre li muy wax ni dara du ci dëgg. te man musuma ko def bu fekkee ni loolu la. Mhm. eh bien man je vais directement de mon propre gré. donc leen rek moom si xaw gêné mais loolu ñaari mbir moomu gêné. Mhm. li tax ñu utiliser article 254 mais balaa article 254 bi sax lii roppi na ko parce que lii maa ngi koy doog a dégg. et wax dëgg yàlla je vous dis euh, man sama ennemi numéro xaw ma lan bu jàkkaarloo woon ak man wax dëgg yàlla di ma di ma di di di di ma xamal ko lii wala sax ma am ay photo fekk fekkee ko. Mhm. du ma ko génne mhm. leer na Serigne Touba Mbacké donc ça me gêne beaucoup et ça me met un petit peu en froid. Mhm. en froideur parce que. parce que je je je n'aime pas ce genre de paroles même bu fekkee ni sax parce que nit dangam yàlla mooy suturaal doomu aadama waxatum la waxatum la doomu aadama lii wax dëgg yàlla Bah Diakhaté c'est quelqu'un que j'aime beaucoup de par euh, euh, yenn dëgg yi muy wax mais fii xam nga nit ci biir wax xëy na peut-être mun na juum te ci juumte boobu nag wax dëgg yàlla man lii nii juum laa ci gis. Mhm. parce que bàyyi même bu fekkoon ni am na sax moom jullit la quoi ba jaxate te day politique kese dañuy xëccoo mbirum nguur la mbirum àdduna la te te yàlla am na te moom xam naa ni gëm na yàlla yonent bi ak Serigne Touba. Euh, te warul warul warul wax yenn yenn yenn yenn wax yi. bii mm. bii bett na ma torop mu ngi noonu kàddu yi nga xamante ne moom Bah Diakhaté daal dina koy wax. waaye ñi nga xamante ne waaye taalu réew nag dégg nga. taalu réew. waaw ah, non non non mais ta mais nit mu accusé nit. mais man xam na laa ko gisee. Hmm. comme man ma ñëw na accuser la dara rek. c'est pareil yaa ngi naan ci sa procureur warta woon a autosaisiru mais procureur bu autosaisiru wul. ay militant Ousmane Sonko muy waa Pastef dox ba jàkkaarloog ak Bah Diakhaté su boobaa lan mooy xew. mais ay militant Ousmane Sonko ay militant Macky Sall mënoon nañ dox ba gis Ousmane Sonko wala keneen def ko la même chose ay militant wu euh, euh, Léopold Sédar Senghor mënoon nañ toog ba gis Mamadou Dia def ko leneen non waxuma loolu xam nga lan la wax lii c'est à lii du affaire u état affaire u nit ki la la personne physique par rapport ak son intimité. Mhm. ñu ne lii la def. waa ji moo waroon jóg dem porter ko plainte procureur bi warul woon autosaisir man gisuma raison bi du affaire militant affaire militant mooy man am naa ay nit man am naa ay militant dëkk bu am yoon ah. li procureur def loolu rek la waroon a mën a def non procureur li mu war a def li nga xamante ne tey jii nii dafay raam procureur procureur li mu waroon a def def na ko waxuma amu ci droit dama ne man bu ma nekkoon place Ousmane Sonko laa wax du ma nangu procureur bi def loolu parce que daf ko def parce que premier ministre gis nga ci article 254 la ñu référé wu alors que lii nii. lii nekkul ne daf ko def parce que premier ministre la de parce que ministre euh, procureur bi fi nekkoon du temps de Macky Sall moo fi nekk ba tey. non mais du foofu laay waxee man je parle du point de vue du droit article 254 bu mu dem jëlee. Mhm. Euh, euh, toftal ko ak une des dérogations ou une à certaines prérogatives. Mhm. maanaam ñu taqale ko ak comme si c'était l'article 80. bi nga xam ne moom lañ jagleel président de la république. loolu yëpp offense au chef de l'État c'est pas ça. aussi non loolu jaru woon mais Ousmane Sonko moo war a dem porter mm-hmm. moo war dem porter parce que Ousmane Sonko yàgg na def ay plainte yu gën a yu gën a moins grave que lii. Mm-hmm. ci ay wax yu ko daan wax. am na plainte na fa ay nit plainte na fi Mamour Diallo plainte na fi ay plein de choses pourquoi du continuer à di plainte ni en tant que en tant que citoyen d' parce que euh, poste bii nii c' un c' de premier ministre. c' mu yoroon doon opposé jamono ji dafa am ndomba tànk woo xamante ni le le président de la république. waaw moo ko nommé. mu nekk ilimaanu jëwriñi di le premier ministre. bul fàtte ni ñaari titres yu différents la. foog mbir mi coow gi fekkewu ko moom lii muy li mu koy accusé mu nekk premier ministre. si. li waaw ah, déet doo ma bàyyi wax. non déet man kay li ma wax leer na dama ne li wax nii seen yi muy seen seen yi muy wax nii moom yi muy yi Bah Diakhaté di wax yi Bah di accusé Ousmane Sonko boobu Ousmane Sonko nekkagul woon premier ministre. yan. non li mu koy accusé nii xanaa déggoo ko wax. dégg naa bu baax waaw seen yooyu mu ko wax yëpp. du bërki démb Ousmane Sonko bërki nekk le président de la République. waaye yow lii nii c'est tellement récent. lii bi Ousmane Sonko nekkee premier ministre barki Dembo Ndiaye la. taxaw ngeen moom bi mu koy wax d'accord naa li yàggul ndax waxuma loolu mais est ma ne li muy wax nii yëpp. teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko. du léegi la am bu fekkee ni am na. wala bu fekkee amul. moom bi mu koy wax ci beneen période la woon. pas wax bi de bi mu koy wax moom ici président la ko waxee yàggul. mais seen yi muy wax. seenu avant la dañ la jiiñ lii dañ la jiiñ lii du bu mu nekkee premier ministre lañ ko la la la la la ko koy la ko koy la ko dal bu fekkee ne loolu am na. yaa ngi dégg baax li ma wax waaw ah, man foofu rek laa waxee mais waxuma wax bi wax bi kay bërki démb la ko wax apparemment pour ñu gagner du temps dikk daal dinay def li nga xamante ne moom moo di vérification ci téléphone portable ki